bi ma jógee rek laa ko war a jógaale loolu moo tax ma defe ko noonu moom laaj ba ma jëkkee wax loolu laa wax ne mooy suma itte xam xam-xam bu mat ngir jaamu suñu boroom xam-xam bu mat ngir matale suñu teewaay ci kaw suuf xam-xam bu mat ngir ñoŋal suñu digganteek askan wi xam-xam bu mat ngir dundal diine lislaam ni mu waree dëgg xam-xam bu mat sëkk ngir nekkin wu ñoŋ ngir askan wi yépp xam-xam bu am njariñ jàngaleem sëriñ Touba Cheikh Ahmadou Bamba Xadimu Rasul mi sos yoonu murid dafa dëppook njàngaleem lislaam liggéey ba mel ni dootoo fi jóge jaamu yàlla ba mel ni tey ngay faatu cheikhul khadim di sisaku hamham, hamham xam-xam xam-xam bo xamne dafa deppok njangalem l'islam bal yur muridiya ak bepp xam-xam bu am njariñ jurom ñen fukki at ak ñent ginaaw bu mu laqo jar jaram bi nga xamne ci cëslaayam moo di xam-xam ak jang ak jangale day wey di sax dak sa su nek ñuy wey diko yessal té lolé likoy jëmmal fess na ci diwanu Touba ba ñepp tek seen bëtt di ab jangukaay bu mag liggéey bi sëñ Tuubaa bi bii tam tàmbali da cee bokk waye liggéey bi réy na yaatu na. fan ci wéru décembre atum 2018 xalif général des Mourides Serigne Mountakha Bassirou teg xeer wu njëkk ngir liggéeyub jàngukaay bu mag bi nga xamni mom lañu duppé complexe Cheikh Ahmadou Bamba ngir jàngale ak yar mu amé won ci ab ndaje bu yaatu lol boo xam ne mbooleem kilifay diine ak aada woon nañu ko ak njabootu sëriñ Touba gi te waayu gouvernement bi fësal ko ki nekkoon jëwriñ jor wàllum biir réew mi Aly Ngouille ak jëwriñ jor wàllum njàng mu kawe mi professeur Mary Teuw Niane jubluwaay bi moo di xambu taalub jàng bi nga xam ne tàkk na ci diwaanu Touba muy ab daaru ju matale jumtuwaay yu matale si wàllum njàng wàllum nekkinu dongo yi waaye tamit seen wérgu yaram ba si fi ñu jaamee suñu borom ba si it fu ñu war a mën a gëstoo amul lenn lu ci manqué di daara joo xam ne dina mën a dalal lu toll si téeméeri junni yi ay jàngkat. moo sañoon euh, daara yu jëkk ya euh, la fa nekkoon dana fi dana ñëw fii muy a Munawwara muy Bagdaad muy Basra muy Kufa ba ci xaayira loolu mooy daara yu mag yi jëm si xayrawaan daara yu daara yooyu yëpp nag mooy mooy cosaanu lislaam ci ci daara la fa nekkoon ci xam-xam xam-xam cosaanu lislaam dëgg-dëgg moo sañoon la fa nekk lépp euh, dana ñë danañ ko dana dana ñëw fii mu doon liggéey boo xam ne nag bi ko sëriñ bi tàmbalee li ñu ko wax ñëpp dañoo jóg ànd ko ak moom ni ko boroom xam-xam yi defee. mu ne ñu ñu def université boo xam ne eh, de classe mondiale lay doon. bu ñu woon tàmbali leen ñu tàmbali parce que programme yooyu day yoo xam ne programme pare na ba pare non seulement programme yi pare na mais ñu fay jàngal tamit sax profil yi nga xam ni moom lañuy ñuy laaj. muy profil enseignant yi nga xam ne war dugg foofu tamit ak euh, ni ñu duggee tamit lépp def nañ koy lël ba tënk ko ba def ay profil yoo xam ne nii mooy correspondre ak ñi nga xam ne war a jàngale foofu. loolu yëpp sëñ bi prévoir na ko te jox nañu ci ndigal pour ñu doxale ko ni nga xam ne noonu la war a doxee ci Sénégal noonu la war a doxee ci Afrique noonu la war a doxee ci ci àdduna bi yëpp. université lañ bëgg boo xam daal université d'excellence lañu bëgg mu nekk. الله الكريم شيء على اتخاذه بفرول وسنن سكنته لأنه خطا خني لوتن به نفع ما خني ورعاني إليه بلا من بعد ما هذا باب تخلي cheikh ahmadou bamba xadim rasul dafa yaroo ci keppaaru xam-xam xam diine lislaam bu mu fekk njabootam gépp nekk ci cheikh ahmadou bamba dafa soqi ko ci famille boo xam ne famille xam-xam la famille xam-xam la soqi ko ndax ay maamam ak i maamaatam ba ci waajuram ci diine ak jàng ak jàngale rek ci lañ leen mës xam mom bim mu ci aduna ci wajuram mu yi wax sëñ Mor Anta Sali doonoon jàngalekat jàngkat jàngalekat doonoon qadi di kadi bu ladjor don doon diisoog moom ci walu diine mané jang lol lool fess kon mu soxiko ci waajur wu mel muy Mor Anta ah soxiko ci it waajur wu jigéen woo ku ne xamna taxawayam yu bax soxna su bax soxna su am dine soxna soo xam ne wattu woon na bi yàlla bi tabaraka wa taala te doon na ko jëfandikoo doon na ko jëfandikoo ci moom soxna Mariama Bousso moomu jaratulaa ci la soqi ko muy waajur wu jigéen ñoom ñëpp nag boo toppee seeni càlla la dañuy càlla la woo ca ay boroomi xam-xam yu magoon ci réew bi ba ca mamma arab kenn ku ci nekk nitu diine nga woon nitu jàng nga woon nitu jàngale nga woon kenn ku ci nekk loolu loolu rek nga liggéey ñaan naa la nga def sama dëkk bu sell bi di Touba mu di dëkkub xam-xam dëkkub jàng ak dëkkub gëstu Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba ñaan suñu borom si Matlabul nii Touba di dëkk boo xam ne dañ fiy sàkkoo xam-xam bu ñoŋ. di ñaan goo xam ne yam rekk si kàddu waaye dafa am jëf ju ko taw Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba xam-xam jaral ko mu sàkku jee ko fu gën a sori ngir xam. tey xamle njàngaleem lislaam bi nga xamee ne soqi koonu foofu nag kon jàng dana ko war a yomb mu tàmbuli jàng alxuraan nañ ko daan defee ci jamono yooyu jàng alxuraan ci eh, eh, maamam ju ñuy wax tafsir Mbàkke Ndumbe nga xam ne mooy najaay mooy najaay yaayam mooy najaay yaayam najaay soxna soxna jaara tafsir Mbàkke Ndumbe tafsir Mbàkke Ndumbe moo ko jàngal alxuraan ci ni ko sëriñ Mouhamadou Bachir waxee ci menul baaxul xadim ba mokkal ko man koo bind man koo tajwid ba mu fa jugee mu delluwaat ci waajuram waajuram gën koo rafetalal alxuraan bi bi loolu jàllee xam-xam bi nga xam ne jàng na ko mi ngi ko jàngee ci najaayi boppam ki bokk ak soxna jaara ndey ak baay muy sox sëñ Busoobe sëñ Busoobe bi ñu xam moo ko jàngal xam-xam jàng na ci moom lu baree baree bare ba mu ci jugee mu dem ci eh, doomi doomi ndey wala doomi baay doomi ndey baayam ñu koy wax sàmbatu kulóor ka sëñ sàmbatu kulóor ka doomi nday Maamor euh, Anta Sali la moom it jàngal na ko lu bari ba mu ci jógee mu dem ci euh, Xaadima Jaxate Kala bii ñu xam am na lu bari lu jël ci moom ci xam yi arab ak xam-xam yu jëm ci loolu ba mu ci jógee mu dem ci naar bu ñuy wax Mouhamad Addaymani Mouhamad am ab Mauritanien la woon boo xam ne daan jógee Mauritanie di ñëw Sénégal ak dem di wàcc Njaañ te Njaañ jege na ak euh, kok kii Bakke Kajoor sëñ Tuubaa ci itti ju rëy muy ñëw ci naar boobu di jël ci moom ay xam yoo xam ne xam yu am solo la xeyna na tasaaroo ci rewmi ñoñu dal ci tak ñoko jangal walu xam-xamam ba mu ci lool ba àgg ci fo xamne ne sori won na ci lool. ñu bari ci bir loolu jaar na ci loxo mën nañ ne ñi ne ci ronom ci ñu mbokal ñëpp mo leen jangal mo leen tambulil wala mo leen àggaleel wala fu ma mën nekk doon jang mo leen fa yow ku mel ne maam ibrahim rawat na ci eh, njàng moomu nak barab bi mu doon barab bi wuté la mën nañ wax ne fu ma sa nekk rek la di tambalé patar am ngeen mbacke mbakke ak bi mam boy juróom gene aduna mu togu dir wota yoon wi yagu fa dal di ñew mbacke bol gi nga xamne fa la gane won aduna ko bi mu dafa woy ñangale mom moomu foofu sax ci mbacke fi la talife téeréem bu am solo bobu nga xamne moy masalikul jinan xamne da ca teunk tasawuf ak euh, li mu wundu foofa yit batay mi ngi doon jangale ñew mbak ñew daaru nga xamne moy barab bi mu foofu it daara jafa la nekkoon muy jàngale ak ñi mu jàpp ba jógee Daaru Salaam ñëw sañ ci Tuubaa it demee ba liggéey bi gën a yaatu nag fekk ñi mu njëkkoon a waajal ñu ci bari noppi nañ ci la tàmbal nag tasaare daara ay jàngalekat yoo xam ne ñuy jàngale alxuraanul karim ak ñuy jàngale xam-xam sharia yi ku mel euh, gën a fés ci ñi nga xam ne da leen a sampoon jàngale alxuraan la ci Tuubaa ca daaru euh, ca Mbàkke Bari ak daarul alimul xabir ki nga xam ne dañ ko sañtoon ngir mu nekk daara ñu andi fi mu ak taalibe yi ay góor ak jigéen nga xam seen ron it ci ron sëñ am na ñeneen kilifa yu fi nekkoon yoo xam ne ak yeneen barab ñu ngi doon jàngale alxuraan waaye sëñ daam xëy na moo ci gën a fees euh, bu dee njàngu xam-xam yi noonu ku mel ne bi tànnoon ko mu jàngale ndax bi muy dem Mbàkke Bari da ko bàyyi woon Touba xam ne ñi doon jàng ci moom lañ doon jàng li ñu war a mu di bu dem Mbàkke Bari yóbbaale maam Thierno ak Serigne Dame maam Thierno di jàngale xam-xam Serigne Dame di jàngale alxuraan. Cheikhul Khadim radiyallahu anhu itteem yëpp ci àddunaam diirub li mu fiy dund lépp ci xam-xam la ko def ndax diirub li fi ne. lim mu fi bàyyi ñu gis ko muy tey li leen wër nii tey fi barab bi nu nekk li nu mën a fab loxo teg ca ne lii moo ko def mooy lu mu bind rek lu mu bind rek lañ mën a fab suñu loxo teg ca ne lii moo ko def te muy lu wér te lim bind lépp mi ngi ko teg ci alquran ak sunna bind ngir xamle bind ngir yare ak bind ngir yeete ñu man cee tudd téere yu bëree bëri yoo xam ne bu ci nekk fànn gëm jëm waaye bu ci ne la koy laltaay muy diine ju set wecc diine lislaam kon li ëpp ci ay téeram da ngay dégg mu ne fi tawxid wal fiq wa tasawuf waaye boo xoolee naxju xataa il xaaj ci ay teggin la ko def masalikul jinaan ci tasawuf la ko def waaye bari na lu mbind loo xam ne ni mu war a tasaaroo sax ba tey des na te jàpp nañ ne ci liggéeyu sëriñ bi dana ci tasaaroo ci fànn yu bëree bari ak ay laaj yu bari yu ñu ko daa laaj mu di ci andi ay at yu xóot yu jafe yoo xam ne ay boromi xam-xam ñoo cay gag mu gàgganti leen sëriñ bi nag mënees naa wax ne sembam bi gënoon a rëy gannaaw jumaay Tuubaa mooy jàngukaayu xam-xam tàmbale woon na sax di jëndul ay téere ngir waajal jàngukaay boobu mu bëgg a di ko jëndulu ci réew yu bari yu bokkut yu jege fii ak yu sori da amoon na maktaba boo xam ne loolu rekk a mu def ko am na bu mu defar loon Touba gi ngir denc ko ay téere am na ko njaareem am na ko Touba waaye waajal na ko waajtaay woo xam ne daana ci waxtaan ak sëñ Mbàkke Buso ak maam Cerno ak boroom xam-xam yëpp wax ne dafa bëgg def Touba jàngukaay boo xam ne kenn du jéggaanee tey jii ni Touba nekkee jubluwaay ngir sàkku xam-xam dëppoog loolu li waral sëriñ bi sos ko dëkk bu ñu sos ngir sàkku xam-xam yar day jàngale jàngale mu lalu si diine complexe Cheikh Ahmadul Khadim di aw matt si wowale say ñëw ngir mottali bëggu-bëggub sëriñ Touba Cheikh Ahmadou Bamba si wàllum njàng ak yar ci dëkk bu sell bi di Touba diggante Cheikh Mouhamadou Moustapha ba si sëriñ Mountakha basiiru mi liggéey bi sottee si ay loxoom ak mbégte mu ma àndal si ay kàddoom xalif yi fi toogal sëriñ Touba yépp sàmm nañu bëgg-bëgg bi ak jëf yu am solo yi ci def université bii nag di daara ju mag sëriñ bi da bokk na ci mébit ya yoo xam ne fu ne ci àdduna la nit daa bàyyi ko la nit di bàyyi ko di fa jànge noonu la ko sëriñ bi Cheikh Mahoudou Moustapha dox jéego yu ndax xam ngeen ne sëriñ Abibu sax moo woon ngir doon mottali yéene yi sëriñ Tuubaa jooju sëriñ Abibu moo jàngal euh, Cheikh Abdou Lahad ak sëriñ Souhaïbou sëriñ Cheikh Mbacke doomam sëriñ Mbacke Madina ak ñaan yu bari ci kilifa yi jàngal na leen kon loolu Cheikh Mouhamadou Fadi tam xam ngeen ne bi ubbee jumaay Tuubaa ji euh, fii Serigne As Jaxate di jàngale yàlla na ko fi yàlla gën a bàyyi doomu am Amsatu Jaxate ubbi na fa daara ci biir jumaa ji ba nëgëri ña ngi fay jàng kon loolu lépp dundal yéene jooju nga xam ne Serigne bi na ko ginnaawam itam Cheikh Abdoul Ahad Mbacké moo naaloon université bi ba collecté ko ba tàmbali ko ba liggéey ko ba mu sori mu doonoon sombu rëy rëy waaye yàlla def juttoon na àgg ci biiru xilaafam Cheikh Abdoul Khadir Mbacke itam li diggante bi gàtt gàtt Serigne Cheikh mii nga xam ne tey moo fi ab taawam di doomu wax na ma ca làmmiñam ne Cheikh Abdoul Khadir waxoon na ko ne sama yitte ji jiitu de mooy fexe ba àggale université bi kon loolu naan la fi yàgg ba mu fi bàyyi ko itam Cheikh Salif Mbacke xam ngeen ne jëloon na lu ma juróom benn téeméer bi ñu àggale woon liggéey ba. ba ubbi daara alxuraan ji ba daara majaalis ubbi fa ba ndege ni boo fa dee da nga ko fekk jëloon doomu Serigne Moustapha Mbacké Serigne Saliou jiital ko ci teg daara jan ci loxol Serigne Abdou Lahad Mbacké Serigne Chouaïb ak sëriñ Djili Mbacké Cheikh Abdou Lahad kon lool mooy histoire bi seen ginnaaw itam Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké bu ngeen fàttalikoo waxtaan ba ma njëkk wax ci turam ca kër Serigne Touba ga amoon na yéene tabax fi jëleen daara waaye yàlla def xam ngeen yàggu fi ñetti at yu manqué defi def ginnaaw mi tam euh, Cheikh Sidi Muxtaar ci biiru xilaafam la ma santoon boole ma ak Cheikh Mahmoud Mountakha boobu mu nekkoon jëwriñam ngir ñu taxawal université bi ñu defar plan yi yëpp ba plan yëpp àgg bañ defar maquette bi ba maa ngi fàttaliku Cheikh Mahmoud Mountakha keroog bis ba ma ko koy jëkk wax daanaka lii nga ma wax de gëmewu ko ndax jàpp naa ne que sëriñ bi tëlu ko tëlu te woote université ndax somb mbir yi ne ci kanam muy jumaay Tuubaa ak Masaalikul Jinaan ak kër Sëriñ Tuubaa gi ci Daaru Manaan ak yeneen somb yi nga xam ne moo ne ci moom waaye nag ndegam yàlla def na xelam ne ci nag man dama ci sant ndax lii moom man la koy dimbale boo fekk ne nag ab cëre moom moom. alhamdulilah rabbil aalamiin nu am tawféex ju toll ne ñu waree tàmbali liggéey ñu fekk nga xam ne moo doon. mébétum sëriñ bi ci saayir si rek taxawaayu liggéey bi li mu mébétoon lépp dafa mel ne kon daara ji rek moo ci desoon moom mu changement bi tey dafa mel ne li mu mébétoon rek li mu mébétoon ci saayir si parce que liggéey lislaam dafa mel ne daara ji rek ci moo ci desoon moom la fi bàyyi. lolu waxal nako bopam jinnu nako itam ci baat lil Mustafa li bana al qudus madrasatan biha yazul al adha wal jahl wal kamal lolu jinnu batin la wax na daara ji moom am ba noppi borom yonent bi ko Touba moo ko moo ko moo defal la ko ba noppi ci maanaam buñ Moustapha buñ Moustapha lii banal xudduusu yàlla ci boppam moo ko moo defal na ko loolu dañ koy fekk moom mi ngi fi kon suñ tawfeex la ci nun nu ñëw war a liggéey liggéey bi rek nu fi andi liggéey bi dong mën a fi bàyyi nu am tawféex nag ñëw fekk loolu desoon ci li nga xam ne moom la mébétaloon lislaam mu daldi xam ne loolu amul wàcc ma war a jug na bi ma jógee rek laa ko war a jógaale loolu moo tax ma defe ko noonu moom laaj ba ma jëkkee wax loolu laa wax ne mooy sama itte bi mu ko xalaatee daf noo woo waxal boppam kàddoom ñu dégg kàddu yooyee bi nu ko déggee nag ñu teg ca ñaari fan daal di woote ci kër Sëñ Tuubaa ga teg waxam ji ñu tedd jooyee ñun ñëpp ñu dégg ko ñu wut mbooloo lu fukki nit ak ñaar ba fukki ñett ku nekk ñu ne la danoo bëgg nga déglu waxi sëriñ bi yaa xam nag nu la soobee rek loo ko mën a déglu lu mu bari bari waaye li ci déggee nag bind ko bi nu ko defee loolu ñu tënk ko am ci wenn déggin dem yóbbul ko jàng ko mu dégg ñu jox ko ko mu toog ab diir wootewaat yam ca bëgg yokk mu yokk ko ca la nga xam ne daf ko caa bëgg a dindi mu dindi ko ci ñu defaraat ko ba mu ne nii laa ko bëggee woon loolu nu ko joxoon muy rapport bu ñu ko njëkk a jox moom la jox ay architecte ne leen dama bëgg lii ngeen jëmmalal ma ko ci ay plan ñoom ñu def ko traduire ko ci ay image ak ay plan indil ko ko bi mu ko xoolee ba noppi mu yabal leenaat ci noonu ñi nga xam ne noo doon def liggéey boobu yi ñu xoolaat loole ba nga xam ne dëppoo na ak niñ xalaat ak liñ tëraloon mu soog joxe ndigal nag ci ñëw taxawal liggéey wala tuaaxisna bi Ahmadul Khadim ngir jàng ak yar koppar yiñ ci def buñ koy xayma si xaalisu réew mi yegg na si fanweer ak juróom-ñaari milliards yu toftal bërëb bu yaatu jege fanweeri hectare am ay jàngukaay yu feccantikoo te wuute doore ko si Kidal ba ba si njàng mu kawe mi njàngum alxuraan ak institut du Coran majalis bi ngir njàngum xam-xam université ngir njàng mu gën a kawe ak ay pôle yu feccantik euh, complexe bi nag euh, muy mu jàmma cheikhul cheikh ahmadul xadim li tarbiyati wa takwin euh, dañ koy gën wax université waaye sëriñ bi daara ji mu taxawal day daara joo xam ne dafa ëmb ay pàcc yu bari Euh, université bi bokk ci pàcc daara ji daara ji dafa daara doon daara joo xam ne dafay jëmmal gis-gisu sëriñ bi gis-gis bi nga xam ne mu ngi tënku ci ni mu koy faral di binde mooy al ilmu naafi wal amalu saalih wal moom sax moom lañ jël muy bàkku euh, muy devise daara ji mooy xam-xam bu am njariñ jëf ju baax ak teggin yu ñu gërëm mu doon daara joo xam ne it li ko tax a jóg rek niñ ko waxee jëmmal njàngalem sëriñ bi waaye war a am ay mission yoo xam ne mission yu yaatu la waaye mën nañ koo tënk ci ñett yoo xam ne bu ñu duggee ci pàcc daara ji pàcc bu nekk am na lum ci taxawee waaye li jiitu ci daara ji mooy at takwinul ilmi mooy formation boo xam ne formation bu tege ci xam-xam waaye boo xam ne dafay dëppook fi jamono toll waaye doon boo xam ne day ëmb njàngaleem lislaam mooy dañuy former nit ki eh, ci formation boo xam ne formation islamique la waaye teg ko ci norme académique yi nga xam ne fi la jamono toll mu doon daara joo xam ne kër gëstu lay doon mooy albaxsul ilmi waaye muy recherche scientifique boo xam ne dafay liggéeyal maanaam lii di yokkute yokkute boo xam ne day tàmbalee fii eh, ci wàll yëpp nag waaye day ëmb réew mi mën nga ne ba génn ba ci bitim réew muy daal ndax day liggéeyal humanité ci boppam maay xam-xam boo xam ne day jëriñ adduna bépp waaye it doon daara joo xam ne bokk na ci ay mission mooy tasaare lislaam njàngalem lislaam rawatina ci manhaj wala njàngalem Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu nga xam ne dafa ñëwoon ngir yeesal lislaam jàngale ay valeur yu yaatu yoo xam ne adduna bi soxla nañ ko lu aju ci jàmm lu aju ci liggéey euh, lu aju ci jikko yu rafet loolu kon mën nga mën nañ koo tënke ne mooy mission daara ji moo tax ñu tëral système ñu nekkoon kon nañ tëral njàngum alquranul karim ndax mooy lan lépp ci lislaam nañ tëral itam njàngum li ñu tudde majalis mooy njàngum xam-xamul lislaam mi nga xam ne moo nekkoon cosaan ci ci réew mi dañ tëral tam njàngum école école moderne nañ tëral njàngum université itam enseignement supérieur moo tax ñu euh, def ci xeet yooyu Euh, mu mat euh, ñeenti xeeti jàng yoo xam ne yëpp dañ leen tëralal programme moo tax ñu tudde ko système complexe bi nag sëñ bi dafa am yu mu tànn ci yooyu ne yooyu la bëgg a ci complexe bi muy euh, daaray alquran ak daaray majalis ak enseignement supérieur rawatina faculté boo xam ne étude arabe islamique lañ fay def loolu mooy complex bi waaye ci biir système bi la nekk institut du coran manam Dare Al gi ni mo ragne ko modi di donga yi dañ leen ci at yu gëna gaaw juróom-ñaari at nga mokkal alxuraan ba nopi beqi te njàng mi serigne bi moy war loolu lépp ndonga yi dara ji nak li taxajog rek ñu di mokal ci riwayat warsh eh, ak mokal bu wër nak comme ni mag ñi daan defé dembu eh, di ko Euh, mana a bind te duñ ko xol manam mokkal ko man ko tari man ko bind ta duñ ko xool euh, ta dir manam yag gi mu daan yag bu yagge nonu tu mu nak gi ci daan amit dutu ci am euh, ko defé nga xam dir bi ñi jang alquran ci juroom ben at rek lay tollu bu soobee yalla ñent at yi ci lañuy jang alquran ba wacc ñeneen ñaari at yi ci dess ci lañ koy Euh, dëgëral maanaam diggante li ñuy wax beqeeg bind kaamil ak jàng njëlbeenu xam-xam yooyu diirub juróom-benn at daal ci la ñuy euh, mokkal alquran mokkal bu wér jàng ci euh, njëlbeenu xam-xam yi ba noppi itam lépp amut amut kenn du fay dara maanaam sëriñ mooy mooy amee lépp daal hmm, ci njëlbeen dana war mën a jël junni dong ak ñaar téeméer ci njalbeen ci li nga xam ne moo moom lañ tàmbaleeguñ ci bâtiment yi fi nekk ni nga xam ne bu àggoon tey ñu daa tàmbali junni dong ak ñaar téeméer lay war a doon ay góor ak jigéen waaw dana am ay góor am na ay jigéen dana am it mën naa am it ñuy jàng di ñibbi ak ñoo xam ne dañuy dëkk ci daara ji njàng li mi itam dana ànd ak nag ay ay yeneen activité maanaam loo xam ne pour yar dong yi lay doon ak tàggat leen def ci ñoom ay jikko nga xam ne du yem rek ci njàngalem arafi kese waaye dañ leen di tàggataale ci eh, ñu amee jikko yu baax maanaam lii sëriñ bu mag bi amoon ndigal ba ba tax mu woote wootem bi muy jàngale te te mi ñu boole ci eh, maanaam bu boole ci yitte te mooy fexe ba nit ki am ay jikko yu baax yoo xam ne fu mu dem man nekk loolu itam daara ji daf ko bàyyi wàllu xel ti ko dugalaale ci biir njàng mi itam dañ leen di tànn dañ leen di tànn ci seenug mën a jàng ak maanaam seenu mën alquran waaye te tànn leen ci mën a jàngale man a jàngale ci lewet gim laaj ak mën a maslaa gim laaj ak mën a euh, te xale bi ba mën a def ci moom li nga bëgg def ci moom te du ànd ak fitna yooyu yëpp dañ ko ci tànn. di aw yoon wala yóbbu si ñaareelu tolluwaay bi majalis ngir jàngum xam-xam ñu daal di koy dëppaleeg jamono ak njàng mu gën a kawe. waaw bi de am njàng la moo xam ne wala aw jàngalin la woo xam ne mu yàgg ci réew mi yàgg ci lislaam la mën nañoo wax ne borom xam-xam yi gën a mag ci lislaam ci njàng moom lañ jàng gis na ko tuddee taalimul atiq ci yenn réew di ko tuddee ak taalimul asil ci yeneen réew yi daan réew wute waaye man njàngum cosaan mi nga xam ne dafay lallu ci xam-xam yi yi nga xam ne xam-xamu diine la ñuy tàggat donc dañ ci jàngal ci biir xam-xamu diine làkku arab ci la bokk ndax mu ëmb xam-xamu diine yi jàngi woo xam ne day day boole di ko mokkal ak di ko peeg nga fexe ba mu nekk ku am culture lu ne mu xam ci islaf waaye day peeg fànn gi lu bokkoon ci li gën a ràññi ko njàng la moo xam ne e, yàgg na am jeexit e, yàgg naa bari njariñ it laa wax ne kilifa yu mag yëpp ci lañ jaar tërlin tëralin yu yees yi amee e, la tàmbali waaye bu njëkk ñëpp ci lañ doon jànge nga xam ne fànn gu ne da nga koy toppam jeex moo tax nag sëriñ bi wax ne njàng moomu mooy cosaan ci dëkk bi sunu ma ñu baax ñëpp ci njàng moom lañ jànge ba raw kon nag lépp lu ñu tabaxal sëriñ bi faw mu jiital ci njàng moomu moo tax njàng moomu ñu bàyyi ko xel nga xam ne mbooleem téere yi nga xam daan nañ ko jàng di ci jàng diine wala làkku arab dañ koy jël waaye nag mott li ci yenn fànn yu yees yi nga xam ne xëy na jamono yi ñu daan jàng yooyu fànn yu amagutoon ak yeneen fànn yoo xam ne jamono soxla na ko yooyu lañ boole tëgg ko ci ab programme boo xam ne boo ko xoolee la lañ doon jàng démb lépp nga ca waaye nag mottali nañ ci lu manqué woon loo xam ne bokkutoon ci loon jàng ngir xëy na barab yi nekkoon wala jamono laaju ko woon te jamono laaj ko léegi ñu séddale ko nag ki ñeenti étape étape bu nekk di nekk ñetti at nga xam ne xale bu ci duggee ba bi jeexalal fukki at ak ñaar la fiy def buy génn niveau licence lay génnaale ci xam-xami lislaam yi ak làkku arab jàpp nañu boobaa it dana peek ci aju ak xam-xam yi koy dimbale danañ jàngalaale it làkk yi dund ci àdduna yoo xam ne nit ki da koy soxla ngir euh, buy wooteel yàlla mën koo jëfandikoo ci yeneen fànn yi xam-xam yi nga xam ne àdduna da koo soxla ngir dund bokk na ci xam-xam yi nga xam ne dugal nañ ko ci biir di ko ci jàngalaale ba tey bokk na ci lu yees la ci mu jamax yokk daawul yitte woon lool lool lool di natt njàng mi def ay examen di natt xale bi fu mu toll bii nag fu mu toll fu ne am na ko ñeenti marxala la marxala bu ne nekk ñetti at mu ne danañ ko natt ba xam dana mën a jàll ci atum ñaareel bu bi jeexee ñu natt ko ba xam dana mën a jàll ci étape bi ci topp noonu lañ koy toppee ba bu ñu àgg nga xam ne fu ci nekk it bu jeexeelee marxala am na diplôme lijaasa buy saxal ne jeexal na marxala bi ma na jàpp ne ñetti at yu njëkk yi. la mu fay jëlee day toll ak certificat bu ci teg toll ak brevet bu ci teg toll ak baccalauréat mujj ba toll licence waaye nag moom njàngum diine lay gën a soxal ak xam-xam yi dëgëral diine ak yi koy jàppale yooyu daal ci lay ci lay gën a euh, jëmal ab liggéeyam euh, ak làkk yi nga xam nag dañ koy soxla dañ fi jàngalewaale bu ci jeexal gi finance islamique di sàkku ki fi jàng it mu def ay gëstu nga xam ne buy génn euh, day génnale ab gëstu boo xam ne moom la ñuy ci lañ koy natte ba di ko jox la lijaasa bi ñu koy jox itu memang université bi teunkou ci ñett UFR ak ñett institut ñett UFR di bërepp yu ñuy jàng tay gëstu waye tamit ay institut yu jàng si wàllum wérgu yaram walum mbay walum xarala ba si li nga xamanteni bi modi walum yër gi di ay téré UFR étude islamique et arabe man nañ ne moy UFR bi nek ndey université bi ndax mooy cosaanam euh, li muy war a taxawee ci liggéey bi it mooy jàngal doomi jullit ñi euh, mbooleem xam-xam yi aju ci lislaam ak fànni xam-xam yi aju ci làkku arab ak fànni xam-xam yoo xam ne ay sciences humaines la ba ci sunu langue internationale yi nga xam ne jamono daf koo laaj ak suñu langue nationale yi ba ci informatique yooyu yëpp UFR bi daf koy taxawee UFR bi dañ koo séddale def ko ñaari département walla ñaari section section bu nekk ak lamu mu jagoo ci ay am jàngale département bu njëkk bi mooy département étude islamique mooy addirasatul islamia beneen département bi mooy euh, département langue et littérature arabe lugal arabiyya wa adabuha loolu mooy ñaari département yi département bu ci nekk nag ni ma la ko waxee rek sànq am na ay matière ak ay discipline yoo xam ne ca ngay màcc gën a jëm bu dee département dirasat islamiya xam-xam ya fa gën a fës mooy ulumul quran wal hadis mooy xam-xam yi aju ci alquran ak hadis bu ca tegu mooy al aqida wa tasawuf mooy xam-xamu pas-pas pas-pas ak soufisme théologie ak soufisme bu ci tegu mooy al fiqhu wa usuluhu boobu it bu ci ponk bu ci am solo la mooy xam-xamu fiq ak euh, règle yi nga xam ne ñoo koy ñoo koy régir euh, beneen bi mooy al ulum al insaniya des ko fay jàng mooy lu mel ne ay philosophie psychologie et yu mel noonu dañ ko fay jàng dañ fay jàng it euh, luxal arabe ci boppam dañ ko fay jàng mu nekk fa benn discipline wala benn unité d'enseignement ak nag langue nationale yi langue étrangère yi ak euh, euh, informatique yooyu kon ñooy domaines yi ñu jàng ci UFR wala ci département bu njëkk bi muy département science islamique wala étude islamique bu ñu demee ci beneen département bi muy département langue et littérature arabe muy al-lugha ba arabiyya wa adabuha euh, domaines yi fa gën a fes ci mooy yi may lim ba ci njëkk mooy al-lugha al-arabiyya langue arabe rek benn unité d'enseignement la fa al-lisaniyat muy linguistique moom itam beneen unité d' enseignement la fa al ulum al islamia science islamique dañ ko fay jàng comme unité d' enseignement moom itam al ulum al insania muy sciences humaines yi dañ ko fay jàng ba ci langue yi comme ni ñu ko waxee woon fale ak informatique yooyu yooyu domaines yi nga xam ne dañ ko fi jàng كل يبين دفع أم لوم راني كلو خامنة بارواني إنيفرسيتي بويدم بوخامنة دوكو فك دفع جوخ جد لول إلما أك ماتير ينغا خامنة داني رانفورسي دي دغرل إيدانتيتي ريليجيوز بيغا خامنة سونو ماغ نيو باخ ني تي لين تنكول شيخ خليم رضي الله عنه تنكول تي اي طالبين موتا خام خام يو ملني العقيده الاشعريه Euh, loolu dañ koy jox gëdd day tàmbalee ci at mu njëkk ba ci at mu mujj bi te day am ci ñaari département yëpp li ñuy wax it at tasawuf moom tim day day nekk ci biir programme bi tàmbalee ko ci at mu njëkk ba ci at mu mujj bi muy soufisme euh, histoire u Sénégal ak histoire u l'islam yooyu it day nekk ci biir programme bi waaye nag li ñu tuddee euh, littérature sénégalaise d'expression arabe mooy al adabu sénégalil arabi muy mbind suñu mag ñu baax ñi dañ ko fi jàngale ci at mu njëkk mi ba ci at mu mujj mi ndax ña ci ci njàlbeen gi dañuy tàmbalee ci mag magi Sénégal yëpp waaye ci ñaar yu yi nag ci la ñuy berale loxo nag euh, mbind mag yi toppoon sëriñ Touba sëriñ bi ci boppam am mbindam buñ ci noppee teg ci nag mag ñi ko toppoon seen mbind yi dañ koy jàngale ci université bi te loolu day. Je programme bi ci njalbeen gi ba ci mujj des métiers des sciences et technologies. mi ngi ñu ngi ko samp complexe bi ci pôle universitaire bi donc mu ëmb juróomi département département bi ci jëkk mooy département bi ñuy génie civil donc euh, mooy bâtiment travaux publics avons le département électromécanique am aussi département euh, haute étude commerciale muy HSC, e le département informatique et télécommunications. Et le département département artisanat waaw boo xoolee dafa phase qui ñu phase prioritaire la phase du premier cycle bi mooy cycle licence bi donc une ni fii formé ci ñetti une lañ leen di des euh, jox leen licence professionnelle alors licence yooyu nag moo leen di moo leen di mën a may ñu mën a dem lig wut maam moo xam wutal seen bopp liggéey wala ñu dem wala ñu liggéeyloo leen te ñi leen di soxla it mën na noo aju ci nguur gi mën na noo aju ci ñi demal seen bopp mooy privé bi mën na noo aju it ci ay jàmbur mooy li ñuy wax euh, ONG ak ñoom seen waaye ñun li ñu gën a yitteel nag mooy loolu ñuy wax entrepreneuriat te mooy li li li li li ëpp solo sax ci liñ leen di jàngal ndax fànn bu nekk loolu da cee am solo lool am ci doole euh, nga xam ni bu boobaa ñoom ñooy wutal seen bopp liggéey te su boobaa ca lay ëppee njariñ ndax su boobaa mooy gën a mooy gën a mooy gën a amal amal njariñ askanu yi boo xoolee li wàllu ci wàllu bâtiment ak travaux publics boo xoolee daanaka mooy activités yi nga xam ne ñoo gën a ñoo gën a ñoo ñoo gën a siiw ñoo gën a bari ci li nga xam ne moo gën a dox ci réew mi rawatina fii ci Touba. Euh, ndax boo xoolee gannaaw mbay daanaka wàll woowu moo ci gën a bari te it dafa bokk ci li nga xam ne dëkk bi da ko gën a soxlawoo muy lu nga xam ni dafa bokk ci li yëwanalu sunu dund. beneen euh, solo si fermeté bi am mooy euh, filière artisanat bi artisanat bi boo xoolee naka jekk waxuma sax ci dëkk bi waaye ci réew mi yëpp wàllu artisanat wàllu informel lañ ko xamee. waaye UFR bi daf ko gën a jox solo duñ ko jox gëddaam méngale ko ak li nga xam ni moom la ñuy gis ci dëkk yi nga xam ni filière boobu dañu ko yóbbu ci njàngale mi gën a kawe dañ ko jox solo gi mu war a am boo demee fu mel ni Maroc wala nga dem fu mel ni Éthiopie boo xoolee ñoom si seen njàng mu kawe filière artisanat daf ci am solo lool ba nga xam ni chaîne de valeur bi nga xam ni moom la xam-xamu der am ba ni ñu koy ba ni muy mujje ci wàllu defar dàll defar euh, ay saag yooyu ak yeneen ak yeneen yi ci aju donc chaîne de valeur yëpp la ñuy la ñuy maîtriser UFR de l'agronomie et des technologies alimentaires boo xoolee mbay moom ci ci réew mi boo jëlee téeméer bu ne juróom benn fukk ak juróom dañuy bay

mu dem UFR bo xamné day day day liggéey ci walu mbay mi ak euh, technologie alimentaire manam lepp luy soppi li jóge ci mbay mi ak jamm donc UFR bi dafa am ñetti licence licence bi ci ñëk moy licence agronomie ak production végétale manam lepp lu jëm ci gàncax gi production bi ak nuñ koy nuñ koy sayto nuñ koy jànge ba xam ko ci technologie yépp boo fi génnee licence boobu ngay am d'abord

di nga ko mën a conserver lu yàgg tamit ci technologie yooyu yëpp technologie licence boobu ngay am bu fekkee tamit bëgg nga gàttal sam njàng am na lu ñuy wax DUT diplôme universitaire de technologie boobu ci deux ans lay nekk en production agricole donc boobu tamit da nga koy am ci ci ci UFR e bi complexe Cheikh Ahmadul Khadim ngir jàng ak yar dafa nekk bërëb boo xam ne fay sammu suñu ndono ci walum diiné ci réewum Sénégal sammu suñu aada waral njàng mi samp ay reenam ci biir réew mi waaye tamit ubbi ay bankasam ci àdduna warngal bahima institut bi patch euh, la ci biir université bi patch euh, la nak bo xamné bo am solo euh, bi yëngatu ci lépp luy tagat ñi nga xamné euh, ñom ñoy liggéey ci walum santé di demee ni ay médecin di demee ni ay dentistes ak euh, ay infirmier ay sage femme etc. donc euh, ci euh dañuy sukkandiku ci formation initiale manam ñi nga xamné dañuy soga a mais également formation continue Euh, formation continue bi nag ñi tax mu jóg moom mooy ñi nga xam ne euh, maanaam nañ ba pare am nañ seen métier ñu war a yok yokk seen xam-xam donc loolu tamit dafay nekk euh, benn fànn boo xam ne dañ koy farataal ci ci ci biir université bi bu weesoo loolu également ñu xam ne jàngale bi nga xam ne moom la dañ koy sukkandiku ci curricula maanaam tëggin bi nga xam

Euh, leneen li nga xam ne aussi euh, am na solo trop mooy euh, projet bu toll nii dafay impacter donc positivement le système de santé au niveau de Touba maanaam lépp li nga xam ne dafa jëm ci offre de soins da koy améliorer ndax dina tax ñi nga xam ne dañuy jàng bu yéegee benn niveau bi dina am lu bëri luñ mën a di ko indi di di indi ci hôpitaux yi nga xam ne ñoo fi nekk ak maanaam centre de santé yi ak yu demee noonu. ñi nga xam ne aussi dañ fiy jàngale ay fajkat la ñuy nekk bu boobaa ñoom tamit danañ mën a def seen loxo ci ci santé bi euh, barab yi nga xam ne dañ fiy jàngee tamit ci wàllum santé euh, dafay nekk barab yoo xam ne day am benn plateau technique bi donte jàngale mooy tax mu jóg mais également dañ ciy fajaale mu nekk yooyu yëpp mu nekk lu am yu am solo yoo xam ne euh, maanaam dana changer xar kanam wàllum santé donc.

Euh, statuem type communautaire la maanaam euh, luy luy féddale luy rassembler yeneen euh, UFR yi institut boobu nag ñaari département ñoo ko ŋànk benn département bi département lang la tudd maanaam département boo xam ne képp ku bugg a jàng làkku réew mi wala ajami wala làkk international ñu foofu ngay ñëw ñu jàngal la am na ci ay formation yu gudd ak yu yoo nga xamante ne mooy gën a gàtt ndax day am ñoo xamante ne dañu am euh, dañu jàng seen cursus yëpp arabe lañ ko def wala ñee seen cursus yëpp français lañ ko def te ñu bugg inscrire ci beneen faculté wala UFR bu ko defee dañuy jaar ci institut bi def bu gàtt boo xam ne euh, ñaari semaine ba juróom-benn semaine loolu dina leen permettre ñu mun a dem inscrire fu ñu bëgg ndax euh, barrière lu nga xamante ne obstacle da daal ci làkk làkk moom la ñuy bañ mu am ci université boobu dañu bugg quel que soit niveau nit ki ak cursus bu mu topp muy euh, bac arabe muy franco arabe muy français tout court wala anglais nga mun compenser wu ak formation bu lay permettre nga inscrire le la neex. service bu bu am solo bu ci euh, institut des langues et des métiers du livre mooy li ñuy tuddee presse universitaire Cheikh Al Khadim euh, presse universitaire yooyu moo nar a mool téere yëpp yu nga xamante ne la enseignant chercheur yi di di di produire wala étudiants bu avez ay rapport bu avez ay thèse ak mémoire euh, wala ay article euh, presse universitaire boobu mon koy mon moo euh, presse universitaire boobu lu am solo la ndax dina tax ñu gën valoriser patrimoine mouride et lépp lu nga xamante mom la ki bi di liggéey complexe bi service bobu moko di liggéey. waaw institut bi il faut waat il faut waat le tudu institut de formation ouverte à distance. waaw mooy bërëb boo xam ne maanaam dañuy mën ngaa toog sa kër mbaa toog bërëb ba nga ne di jàng jaaree ko ci xarala yu bees yi comme ordinateur yi wala téléphone yi waaw donc moom c'est institut de formation IFOAD CCAC waaw donc IFOAD moom maanaam niñ ko niñ ko xalaatee tàmbali guñ ko waaye niñ ko xalaatee dañ ko xalaat maanaam dale ko ci li jot a am ci université Sénégal yi

moi am aussi li ñuy wax DSI moy di direction des infrastructures et de du système d'information kooku moy yor lepp lo xamné mom plateforme yi ndax boo waxee enseignement à distance d'abord dañu am luñu nane plateforme plateforme de de formation yi fa le cours yi di nek da nak ndongo yi door a ñëw mën connecté wu seen ordinateur ak seen machine mëna jang wa dafa am groupe bo xam kurel go goo mo yor lepp luy plateforme

ba njàng mi mën a dox loolu mooy défi noonu lay demee kon dafa am DG moo yor technique bi am DEFIP moo yor dugal cours yi dugal ndongo yi dugal jàngalekat yi dugal tuteur yi ba programmer cours yi kon noonu lay demee léegi nag ndongo yi door a ñëw ñoom ak jàngalekat yi. day fekk d'abord institut yi nekk fa majalis nekk fa UFR yi nekk fa. di jangale ci tew waaye il faut wat nak bu ñewé nyonyo, mom day accompagner ñooñu ba nga xamné ndong yi nga xamné bu ñu amone lim bo xamné dootul xacc ci sal yi ñay ñi mo tok seen kër di jang ba tok fi leen di jang waaye du ci yam il faut tamit dina dina proposer ay ay bind ay jàng ay proposer ay jang dina jappalé ñay Majalis Institute UFR ñu def à distance ay momit dina proposer ay ay ay formation ci boppam pour ndongo yi ak ñi nga xamni ñi ngi seen kër ak ñi nekk ci biir rew ak ñi nga xam ne sax dañoo dem ba nekk ci prison di jang wala ñi nga xam ne dañuy nekk seen kër di sëy di jang wala ñi nga xam dañu am lago am jafe-jafe déplacé tok fi ñuy toog di jàng université université d'excellence la même boo conception bi euh, dañoo fexe euh, loo xam ne nii day nekk euh, moomeelu murid ak aussi des système boo xam day coupé day système boo isolé ñu def un euh, montage bo xamni buñ ko defee dañuy mëna nek en coopération avec toutes les universités par exemple bo xolé université bi ni muy waaj fonctionner du am différence ak yeneen universités yi nekk ci dëkk bi des euh, da ngay gis université bi day am ay rectorat dem ay faculté ci bi faculté am ay département té textes yi tamit ay textes LMD la teg yi tamit moy loi yi nga xamne mo danaka daanaka université Sénégal yi lolou lepp pour tout temps respectant originalité université Touba bi tamit fexé mën a université bi ak yeen université nek ci Sénégal ak yeen université nek ci aduna bi parce aussi tamit am aussi bëgg-bëggu étudiant bu génni fi tamit liggéey ci bi ngay am bo nekkee Sénégal day valable bo démé Burkina Faso wala yeneen pays day valable boo demee France day valable nga xam ne daal day am diplôme boo xam ne dem am reconnaissance internationale. waaw loolu xalif général des Mourides Serigne Mountakha Bachir ci boppam moom moo ko moom moo ko bëggee noonu. waaw moom moo ñu demandé woon bi commencé liggéey ci biir euh, programme yi mais aussi tëral infrastructure yi ni mu war a mu ne ñu ñu def université boo xam de classe mondiale lay doon euh, loolu nag dafa am fu muy jaar fi muy njëkk a jaar mooy euh, programme yi euh, tëddee noo xam ne ni jàng war a doxe Sénégal ci daara yu kaw yi noonu la war a tëddee wante it ñu def ba nga xam ne day dëppoo ak li am ci àdduna bi ci réew yi nga xam ne seen koom-koom euh, féete na kaw loolu nag mooy aspect international bi loolu dafa am nu koy taxawale en particulier li ci gën a am solo mooy mu jël lii nga xam ne moom la ñuy wax euh, système licence master doctorat euh, loolu moo njëkk a taxaw parce que bu li jaay say diplôme yi dëppoog loolu au niveau national fofu amatul benn jafe-jafe parce que gouvernement moo décidé ne njàng mu koy mi à part école d'ingénieur yi li ci des yëpp système LMD la war a doon waaye système boobu aussi euh, moom moo nekk au plan international euh, ce qui fait que boo fi amee licence ñu reconnaître ko nga am fi master ñu reconnaître ko nga am doctorat ñu reconnaître ko équivalence yooyu ngay fekk ci yeneen réew yu yu développé yi daara ji am bërëbub gëstukaay bu mag a mag li ñu duppee daaray téere bibliothèque boo xamante ni bi am na lépp lu ñu soxla ngir gëstukat yi nga xam ne ñoo nekk ci daara ji ñu am lu ñu yittewoo dëgg ci wàllum gëstu bi وهرمة البنين والبنات وهرمة الآل di leen wax ne bibliothèque boobu euh, lu am solo la ci université ndax euh, li ñuy wax politique documentaire maanaam lépp loo xamante ne jëm na ci nafar ak euh, njàng walla ay teede foofu lañ koy defee foofu ngay jëlee Euh, livre yi nga xamante ne téere yooyu daal mooy tax mooy dimbali euh, ndongo yi mooy dimbali jàngalekat yi moo tax mu nekk lu am solo euh, bibliothèque boobu nag moo war a yor li téere yi ak lépp lu nga xamante ne jëm na ci njàng moom mu ngi superficie mu ngi toll ci 2000 mètres carrés ñu tabax ko ci six niveaux dafa am benn sous boo xamante ne moo nar a abrité lépp luy euh, métier boo xam ne day indi bruit mu ngi mel ni reluire euh, yooyu yëpp ci rez ci sous bi la ak benn rez-de-chaussée ak quatre étages donc loolu mooy euh, bibliothèque bi te mu ngi nar a bokk ci zone une zone bu nga xamante ne administration bi la ak service commun yi foofu la bibliothèque bi bokk bibliothèque bi am na solo bu nga xamante ne dina am volet boo xam ne multimédia la volet boobu tam lu am solo la ci bibliothèque ndax ak ndax euh, fi ñu toll nii njàng mi am na euh, côté physique waaye côté virtuel bi tamit day am solo ci bibliothèque bibliothèque bi ni mu ràññee loolu lool ak soloom si mu am si université bi du tee ñu bàyyi xel saa su nekk këru xasida yi ndax dafa doon loo xamante ni bi guléet la sëñ bi xalaat ko teg ko ci yi ndem si yàlla Serigne atu Diagne mi nekkoon jëriñ daara Hizbut liggéey bi mu amal ko nu mucc ayib tey jii ndone li ñu koy wéyal nu mu gënee kawe. waaye sëñ Mountakha ci xalaatam euh, boo xoolee moom moo jëlal boppam initiative. jël projet kër xaside yi nga xam ne boo nee université di nga xam ne dina am bibliothèque universitaire waaye créer bibliothèque boo xam ne dafa spécialiser ci écrit wu Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimal Moustapha kooku initiative wu Cheikh Mamadou Mountakha la bi yàlla suñu borom dogalee mu am ko it euh, ki nga xam ne mënuma tàmbali te mënuma tàmbali samay kàddu te renduma ko hommage mooy suñu kilifa di suñu jëwriñ ji nga xam ne moo tàmbali woon projet bi ak Serigne Mouhamadou Mountakha muy sëñ Atou di ko ñaanal suñu borom gàttandu ko ak yërmandeem gàttandu ko ak njëggalam te fay ko lu tollook lii muy fay di liggéeyal sëñ tubaab bu mu gërëm leen loolu defe naa lépp a ci biir muy un séjour éternel au paradis euh, moom nag sëñ Muntaxa bi mu ko koy euh, jox dafa yëkkati loxoom teg ko ci moom rek ko sama waa ji laa koy àndal loolu nag lu rëy la lu historique la loo xam ne taarix da koy téye li muy wane itam mooy ne ñun dañuy wéyal rek mais li ci ëppoon solo sëñ Atou daf ko def ñu war koo sant war koo gërëm war koo kañ lan moo ci ëppoon solo mooy liggéey dafa am ñaari phase dafa am phase boo xam ne c'est la phase de conception c'est la phase stratégique boo xamante ne ay xalaat moo ci ëpp doole ak expertise loolu daf ko liggéey def ci itam loo xamante ne euh, xarbaax sax daf cee feeñ ndax ça devait nous prendre au moins un an un an et demi phase d'étude ndax Serigne mi le 20 décembre 2019 C'est ci la ndigal li am le 20 décembre le 2 avril 2020 nous avons yoo xam ne sax matul si Ce lépp loo xamante ne c'est la vision bi mu traduire ko def les esquisses de plan, l'avant-projet sommaire, l'avant-projet détaillé, nga qui est lu plan d'architecture yi plan béton armé yi ce qui est équipe yu professionnel ak qui ak fait suba en quatre mois tout a été stabilisé loolu kon defe war nañ ko ci ndax euh, bi lu rek ci xalaat fait kon euh, bu ñu jëlee këru xasida yi proprement di nekk na benn makkaan goo xamante ni am na ñetti pàcc ñeenti pàcc pàcc bu njëkk bi dafa doon benn kaaw boo xamante ni foofu la imprimerie bi di nekk beneen pàcc bi nga xamante ni moo ci topp moom la ñuy wax rez de tombeek fi nga xamante ni foofu lañ toll jamono ñi ci wàllu liggéey beneen pàcc bi nekk premier étage beneen bi nekk ñaareel bi étage waaye ci pàcc yooyu it dafa am loo xamante ni noonu la këru xasida yi bindoo fi nga xamante ni mooy wet gi nga xamante ni foofu la téere yi nekk moom la ñuy wooyee carrément bibliothèque ci biir lool nag am na ay yenn yu ko wër yoo xamante ni ay barab la pour liggéey yoo xamante ni dafa jum dafa jëm ci wàllu bibliothèque bi muy li nga xamante ni mooy lu ñuy wax euh, salle boo xamante ni pour bindukaay la fu ñuy bindee am yoo xamante ni pour foo xamante ni dinañ fa mën a déglu lenn ci xasida yi ak ay jumtuwaay yi nga xamante ni mooy ànd ak li bibliothèque di laaj ci loolu nag am na yeneen batiment boo xamante ni dañ ko see toftal muy auditorium muy loo xamante ni dana baax ci tey bu fekkante ni dañoo am mbooloo mu war a nekk fenn ñu war leen a présenter masalan war leen a woon xasida guñ bind wala lenn fi nga xamante ni foofu lañuy nekk muy auditorium bi loolu it fi auditorium bi nag nekk na espace boo xamante ni mën na jël lu tollook euh, téeméer ak ñaar fukk ci ay place yoo xamante ni li ñuy wooye place VIP ci ginnaaw auditorium bi it ci kër xasida yi waajal nañ fi tamit foo xamante ni ay salon la yoo xamante ni tey bu fekkente ni am fi ñëw fu leen di dalal ba nopi bala ñuy dugg fi ñu dem wajal nañ tamit fo xamanteni ki nga xamanteni mo fi nekkal serigne bi nek ci khilafa gi amna ben suite tamit buñ ko wajal bo xamanteni dafa and ak salle d'attente ak néegu bopam bo and ak euh, dressing ak way ak yëpp donc lolu moy li nga xamanteni mom mo composer globalement keur khasside yi yenen ñaari niveau yi si topit am na ay bureau yoo xamante ni foofu la nekk rawatina fi nga xamante ni moom mooy doon euh, salle de réunion rawatina tamit fi nga xamante ni mooy doon ay salle de tradition yooyu yëpp am na ci biir lu ñu waajal loo xamante ni moo ngi nekk toujours si këru xasida yi maanaam lépp luy accompagner bibliothèque que ça muy bureau yeeg yëpp fagwaale nañ ko ci lépp nag daal di dëxuñu doon li nga xamante ni mooy kër xasida yi ñiy saytu njàng mi am si ju kawe ji ci ndigal serigne Muntaxa Basiru xali général des Mourides teunk nañu mbollem li nga xam mom la serigne bi soxla ba jébbal ko ko lépp yemb na jamono ji do rek mo ci dess te it dara ji dëppook mbollem dara yu mag yi nga xam ño nek ci aduna bu ñu commission enseignement supérieur mën nañ jàpp ni programme yu ñu yu ñu sumb ni bu université bi tijjee mom la ñuy jàngale programme yépp def nañ ko ndaxte xam nga ci ginnaw ay ay semaines semaines ngi nii ñu def ay séminaire def ay atelier euh, ci Touba euh, nga xam ne ñëpp ay jóge fu nekk jóge fekk si waa dëkk bi ñu def ay lël yoo xam ne ni tax na léegi euh, departement bu ñu wax rek ci université bi ak faculté bu ñu wax ci université bi ak département bu ñu wax ci université bi rek programme taxaw na non seulement programme yi pare na mais ña fay jàngal tamit sax profil yi nga xam ne nii moom la ñuy laaj muy profil enseignant yi nga xam ne war dugg foofu tamit ak euh, niñ ciy duggee tamit lépp def nañ koy lël ba tënk ko ba def ay profil yoo xam ne nii mooy correspondre ak ñi nga xam ne war jàngale foofu bu fekkee tamit affaire besoin la xam nga tamit jàngale day laaj logistique ak ay moyens matériels ak ay moyens documentaires yooyu tamit xay xayma nañ ko ba tënk ko def ko ci kayit nga xam ne nii mooy li nga xam ne buñ ko amee mën na bi daal liggéey liggéey bi daal léegi ci lolu nak première étape bi euh, mom le seigne bi di tuddee yonal yonal bobu nak fi jaar ci enseignement supérieur moy bo paré tëgg programme yi taxawal say infrastructure da ngay dal di déposer dossier ministère de l'enseignement supérieur lolu seigne bi euh, nonu la ko euh, reconnaissance bobu nga xamné mom moom la képp koy commencer université Sénégal lolu ngay commencer manam agrément bobu autorisation d'ouvrir bobu dina génn bu génnee ba pare nag li ñu jotaat aussi ci ndigal ci sëriñ bi mooy ñu jaar fa mu war a jaar ba dem ci beneen phase bi nga xam ne moom la ñuy wax habilitation institutionnelle ah, maanaam beneen niveau la nag de qualité booba fekk na ñu dawal am njàngale eh, eh, dongo yi nekk fa jàngalekat yi nekk fa eh, structure bi ñëw nattaat ko nag ba xam est-ce que lii norme yi jaar na yoon bu loolu amee ñu soog a dugal programme yi programme yi dañ leen di dugal parce que loolu la Sénégal exigé ñu def li ñuy wax accréditation foofu yi dañuy envoyé expert ñu ñëw xool programme yi loolu yëpp sëñ bi prévoir na ko te jox nañu ci ndigal pour ñu doxale ko ni nga xam ne noonu la war a doxee ci Sénégal noonu la war a doxee ci Afrique noonu la war a doxee ci ci àdduna bi yëpp université bi ñëwee dafa fekk waxtoom jot ndax ñu formé lu bari ñoo xam ne war nañoo àgg ci niveau njàngum université te amaguñu fu ñu ko woon defee wala boog dañuy déplacé def ci réew naar yi wala ci yeneen béréb yoo xam ne nii nañ ko fa doon ko fay nañ ko fay def ci jafe-jafe la doon nañ ko nañ ko xamee njàngum dafa laaj njàng mu xóot la amuñ possibilité def ci def ci def ko waaye bu dee fii nag dana may Sénégalais yi ak dong yi nga xam ne ñoo fi dem ba seen war a xóotul seen njàng ñu am fu ñu ko defee léegi nag loolu dana dana dana nekk bunt bu am solo ci ci wàllu maanaam jàppandale nit ñi ñu mën a def seenum mu kawe dinañ ko bëggee. des sa tuuti bu bu euh, liggéey bi tàmbalee dox dana jafe lool nga gis koo xam ne ki daf fi bàyyi ko comme ni ni mu daan amee naan damay dem day dem ci ay réew yeneen réew réew yi naar yi wala réew yu arab yi wala réew yi tubaab yi wala yeneen réew di fàggu yeneen i xam-xam. loolu day gën di jafe di gën a jafe ba keroog muy muy muy muy muy dañ te loolu du yàgg du yàgg dara ba ba pare nag ci wet gi nga gis nag koo xam ne kii day jóge ci beneen beneen réew mbaa mu nekk ci yenn beneen alam dégg Tuubaa xam li fi xew fëx wutal si fi ngir ngir ngir ngir ngir sàkku si xam yooyu ndax fàggu gu ko sëñ bu mag bi sa fàggu euh, bâtiment bi euh, nga xamante ni moom mooy témoin bi dafa jàkkaar jàkkaarloo ak bâtiment bi nga xamante ni mooy bâtiment milieu bi nga xamante ni moom ci boppam comme daf ko jege moo tax bi ñu defee gros œuvre bi ba nga xamante ni pare na gros œuvre bi yëpp ñu ngi ko def ci huit mois ci loo xamante ne un an six la waroon doon mais logistique bi moo tax ñu def ko ci six mois parce que dañu indaale woon ay turc indaale ay espagnol indaale ay euh, italien ba pare nag boole leen ak sénégalais yi nga xamante ni ñii ay taalibe murit lañu ñii ay sénégalais lañu ñi ay taalibe euh, yeneen tarixe tarixa lañu ñii dëkk Touba ñii dëkk feneen parce que dañu defoon appel boo xamante ni dañu woon dañuy woo ñëpp. cinq zones yi nombre total de bâtiment bi ñu ñetti at ginnaaw bu ñu tegee xeer wu njëkk ngir liggéey daara yu mag yi ci diwaanu Touba nga xam ne tegtalukaayam mooy dëkk bu sell bi di Touba. samp ay renam ubbi juróomi bànqaasam ngir yokk li nga xam ne moo di gëstu ak xam-xam ubbeeku ci àdduna wërngal këpp teewul samp say reen ci réewum Sénégal ngir sàmm ndono li sàmm xam-xam bi. waaye it dëppale kook jamono tey sàmm alam bi. fii dafa am euh, maître d'œuvre Euh, dafa am bureau de contrôle dafa am assistance maître d'ouvrage loolu moo am ci projet yi ñu xam euh, waaye ñun dañ cee boole leneen loo xam ne projet bii da ko am mooy ay taalibe yu jaayante euh, laxasaayu nekk ay ingénieur ak borom xam-xam ci ci seen métier. Euh, dem ci sëriñ bi euh, ñaan ko may leen ñu ñëw jàppale ko ci liggéey bi sëriñ bi nangu leen ko tudde leen aljaba euh, te ñooñu li ñuy ñuy def laajuñ ci dara kon loolu lu lu dolliku la ci projet mu fekk si nag entreprise yi fa nekk nga xam ne wax naa léegi bu ca jiitu mooy li sëriñ bi di liggéeyloo mooy Touba matériaux waaye nag am na ñeneen acteurs yu fi nekk yoo xam ne euh, ñoom dañoo jaayante mën naa cee wax tubaa ca kanam ndax ñi fa jiitu lañ bokk jël nañ fi benn bâtiment mën naa wax kuréelu homme d'affaires yi nekk Dakar euh, ñoomit jël nañ fi lépp fukki bâtiment engagé nañ ko euh, mën naa cee wax daayira lu Soda من ناتي وخ دايرة تيسور العسير من ناتي وخ دايرة الأمانة والبركة من ناتي وخ سرين شعب دلاكي مجل جمعة جي أك ساند سانتي بي أك أك أك أك ريستوران من ناتي وخ ني يخان توبا كوميرسان من ناتي وخ حزب الترخيص ñoomit ñu def fi euh, kër xasida yi muy lu lu am am solo lu rëy rëy loo xam ne euh, dañ koo beral xasida yi euh, ñu waajal fa nag yu bare bare bari yoo xam ne yu am solo la ci liggéey bi loolu nag day fekk si li nga xam ne état bi am na yéene def ko fi ndax euh, sëriñ bi bi mu songee liggéey bi da cee dogu ànd kook taalibe yi état bi nag bi mu gisee loolu mu am yéen jàppale ko ci ci ci loolu centre de formation professionnelle bi ma tudd léegi muy métier yi centre de formation professionnelle bu bu am solo lay doon boo xam ne moom it njàng mi ci suuf lay tàmbalee jëm ci kaw ne alxuraan ji tàmbalee ci suuf jëm ci kaw noonu la métier yi tàmbalee ci suuf jëm ci kaw moom kon loolu itam euh, day am day am solo muy sant de formation professionnelle am na itam euh, VRD yi mooy mooy tal yi waaw loolu itam. état yi état bi ñu ñu ngi waaj incha allah jëpp nañoo def benn daje ñu ngi waaj ñëw ngir ngir ko. ñaari architecte lañ ku ñuy wax caaw Thiaw Kandji ak man léegi xam nga euh, projet architectural boo koy def dafa am toujours ci ñun lu lay guider li lay guider mën na doon symbolique euh, mën na doon un élément déterminant de l' espace liñ fekk. léegi mais li ñu guidé woo bi nga xam ne par exemple nga xam ne dem nañ bay tëgg euh, projet bi euh, dañ koo dëppee dippali ko ak dëkk bi nga xam ne mooy Touba euh, loolu nag dafa am lu simple rek loo xam ne moo tax biñ nee par exemple dañuy def complexe nga xam ne complexe par définition bâtiment yu wuutee la yu bëri loolu mooy complexe kon nag il faut am loo xam ne buum goo xam ne moom moo leen nas buum góor leen buum googu leen nas nag nga xam ne pédagogie bi définir nañ ko ñun ci suñu wàll dañoo bëggoon a jël loo xam ne par exemple moom mooy nas bâtiment yooyu yëpp nga xam ne benn bu ci nekk mën nañu wax ne bokkut ak sa morom kon ñu dippee ko dëkk bi Touba nga xam ne boo koy seet garab la goo xam ne mu ngi sax ci digg àjjuma ci digg àjjana euh, bànqaasam yi law daj fépp nga xam ne kon booy seet plan masse bi loolu ci symbole bi laa symbole bi laay wax avant ñuy dugg ci pàcc yi booy seet donc plan masse bi euh, dafay représenter garab comme garab googu sax ci àjjana waaye doon aussi nga xam ne par exemple dafay indiwaat dëkk bi Touba ci bopp nga xam ne euh, garab la donc loolu mooy nga xam ne par exemple loolu mooy symbole bi mooy symbole bi nga xam ne mooy symbole fort biñ ko biñ ko bëggoon a jox biñ ko defee noonu symbole ba pare yàlla dafa def am yeneen yoo xam ne daf ci tombe daf ci ànd manam bo cété pédagogie bi da xamné ne biñ ñu joxee li nga xamné mom lay mom le les composants yi nga xamné mom mo euh moy bànqaas yi nga xamné ne ñoo ŋànk complexe bi juróom lañ donc muy juróomi ilo du juróomi bànqaas muy aussi benen symbole bo xamné feñ na ci ci université bi. bànqaas bi njëkk mooy institut coranique bi moy fi nga xamné moy daara alcorane yi nga xamné fa lañu jàngalé alcorane mu am beneen boo xam ne par exemple boo fa génnee yaa ngi dem ci majalis bi boo fa jógee ko nag ci li ñuy wax université proprement dit ci la ñuy ñëw euh, loolu yëpp nag dafa am loo xam ne par moo ko ngànk buntu buntu d'entrée bi mooy administration bi mooy euh, nu mu tuddati euh, tronc bi nga xam ne moom moo kenal université bi mooy administration bi mooy mooy ant fa ngay fa fa ngay boo fa jógee ko nag nga soog a am juróomi kano yi nga xam par exemple ñoom ñoo séq ngànk complexe bi léegi nag ci biir loolu am na nag pàcc bu ci nekk am nga spécificité euh, boy seet administration bi en dehors du rectorat nga xamné lolu loolu xamal nañ ko ak université amna na euh, euh, li wax fondation bi annexe la won mais légui mom moy fondation bi nga xamné fondation Cheikh Ahmadou bam nga xamné xamna né mom moy ngank mooy ngànk gérer complexe bi ci lolu mu am lenen benen concept bu bes bo xamné aussi ñëw na greffé wu ci ci biir complexe bi moy kër khassida yi la du mujj un projet bi université bi projet écologique dañuy xel euh, euh, ak yu mel ngir euh, dafa am solo ci melna Touba motax fi espace vert am di taalibe Serigne Touba war koo liggéey mu war a euh, xëy na toll ci 200 millions yoo xam ne ay garab rek lay doon espace vert euh, kon euh, loolu lu am solo la ci fii eaux usées yi maanaam ndox mi ndox mi jóge ci wanag yi dañ koy defaraat ci station ba mu ba mu ba mu baax ñu koy arrosé garab yi kon plateforme traitement station de traitement bo xam bo am solo la ci fi bo xam nañ ko fay bëgg a def euh, li ñuy wax énergie renouvelable yi loolu itam daf fi dañ ko bàyyi xel ci liggéey bi moy le plus solaire ak yu mel non ndax fi day euh, euh dañ ko wara a xel ci liggéey bi ndax moy tax ëllëg wàllu énergie bi luñ ci mëna euh sakkanal ñu mën ko def mu doon liggéey boo xam ne nag bi ko sëriñ bi tàmbalee di ñu ko wax ñëpp dañoo jóg ànd ko ak moom ni ko borom xam-xam yi defee nga xam ne fii ne bi ñu leen mujjee recensé ëpp nañ 700 personnes yoo xam ne ñëpp nag ay borom yi xam-xam lañ ay sommité lañ ay nit ñoo xam ne dañ leen a tànn ndax li bëggoon a bokk ay nangami millions lay doon waaye ñi ngi ci tànn rek ñu nekk nag ci biir réew mi waaye nekk ci biir àdduna bi kenn ku ci nekk itam moo waxal boppam wax pas-pasam ak yéenam ci. dugal loxoom ci liggéeyub Cheikhul Khadim bi radiyallahu anhu ñooñu ci wàllu yu wute nag am na ci ñoo xam ne sax biñ ma waxee ñoom li ñuy jàngale fañ nekk ci réew yi tugal yu mag yi dama leen lii kañ la ko Sénégal di soxla te dañoo war a àgg ci soxla ko ndax am na doomam yu ko jàng ba di ko jàngale euh, noonu nga xam ne nag boroom xam-xam yi noonu lañ defoon waajtaay wi boroom xam-xam yi ñëw waaj ngir ànd ak sëriñ bi àggale doxal liggéey bi ni la nag mboolem jullit yi mboolem taalibi murit yi mboolem senegal yi ànd ak bi ci yéene ji ak xalaat bi doo ngay murit yi kenn ku ci nekk di def la nga man tàmbalee ci njabootu boppam gi mooy bokkam yi rakkam yi ak ñi nga xam ne Cheikhuna al Khadim radiyallahu anhu moo leen moo leen moo leen defar kenn ku ci nekk ànd ak sa njaboot di indi sa addiya ci sëriñ bi loolu nag mooy liggéey yi nga xam ne moom sëriñ bi moo koy defal boppam ci wàllu koppar moom la dénk sëñ Abdou Lahad Ka defe naa ne bu ngeen fa demee ba gis liggéey ba alhamdulilahi rabbil alamin lu ñu jox sëriñ bi rek foofu la ko jëmee lu ko jox rek foofu la ko jëmee ñeneen ñi itam nag am ñoo xam dañoo ñëw sàkku ci sëriñ bi mu tobbi leen ay sas jàpp naa ne sëñ Amdi Khady Fall la ñuy jiital moom sëriñ bi ko woon sant ko miir ba defe naa bu ngeen gisee miir ba tubaarkàlla ba fi jiite woon Cheikh Abdoulahi Ahad moo ko defal waaye bi mu koy yeesalaat ba di ko toj ñëpp dañ ne woon moom bii moom moom doy na waar waaye lee mu fa def gis ngeen ko te bu njëkk ba alhaaji Ndiour ca bay na ko Cheikh Abdoulaye Ahad sancoon santoon mu defaroon ko ak jàkk jooju nekk ci biir am na ku ñu wax sëñ Cheikhum sëñ Abdoul Hakim di doom ci sëriñ bi rakki sëriñ bi sëñ Abdoul Hakim di waajuram moom itam dafa laajoon sëriñ bi aw sasu boppam mooy fajukaay ba ba ngeen gis poste de santé ba ak daa ak jàkk ja macha allah gis ngeen na mu ko defee waaye am mbooloo mu nekk sowu mo xam ñom dañu ñëwul fi ci sëriñ bi waxtaan ak mom wax ko ne ko dañu bëgg feñal seen yene ci liggéey bi ñu léral leen lépp ñom ñu sasso daaree alquran ji ne sëriñ bi bu soob yàlla ay ciabi lañ lay jox def na gis ngeen moom it seen bâtiment yi fa mu tollu fi mu nekk ni agale rek jàpp na ne moo ciy bëgg dess ñom itam muy liggéey bu ama ama am solo bobu rek juróom benn milliard lañ ko xayma won waaye ñom lañ cey def fi mu nekk sax nanguñ ko wax waaye nee nañ sëriñ bi daal inshallah bala yàgg dañ lay jox suñu ciabi muy liggéey bu am solo mbooloom commercant yi ne ci dëkk bi nag di liggéey ñoom itam ne kat gannaaw nun noo am tawfeex yi dëkk ak sëriñ bi nag lu fi waaye di def dana jàpp ne noo ci war a jiitu donte sëriñ bi nag ñëpp bokk mbiram ki ne fii ak ka ne ca bitim moom doomu aadama yëpp ñoo ko bokk waaye ñoom ñi gën a jege fii nag ñoom itam ñu ñëw sasu fa ñaari an yoo xam ne bu ci nekk 500 place lay doon gis ngeen benn ba daanaka léegi tey noppi am na itam ku ñuy wax soxna Soda Xumma moom itam moo ko njabootam wax ne kat waañ mi moom dama bëgg ci waañ yi juróom benni waañ lay doon mu ne dama ci bëgg a jël wenn boo xam ne ci waa ñu maam jaara tullaahi mariam lay doon moom itam gis ngeen na nga xam ne tabax ba fa la fa toll am na ñoo xam ne dañoo ñëw ñoom itam wax ne gone yi bu ñu jàng am nañ ay dëkkuwaay am nañ fu ñuy jàng waaye soxla nañ ay mbaar yi ñu dalloo wala bu ñu bëggee kuréel wala bu kenn nit dee toog di waxtaan ak ñoom ci diine di waxtaan ak ñoom ci yarum murit di leen defar ngir ëllëg ñu mën a xam naka yan comportement lañ war a am naka lañ war a dugg dugg ci biir jamono naka lañ war a mën a ànd ak nit ñi te kenn du mën a yàq seen pas kenn du mën a yàq seen seen valeur yooyu nga xam ne seen i maam sax dañ ko amoon lislaam ñëw gën koo dëgëral ñu di leen xamal nag sëriñ bi ni mu doon jàngale ni mu doon yare ñu defal leen ay mbaar yoo xam day féex ñu mën a toog dallu bu baax a baax a baax waaye loolu itam am na ñoo xam ne dañ koo dañ koo sasoo noonu daal lañ ko toppee muy liggéey boo xam ne kenn ku nekk am na yéen def ci loxo wajal ومن جوى ومن حرام ووسم ومن أجل كله مقبولا أتى أكون مقتدا مقبولا li waral muy wax nag mbirum Mamour Ibra Kane moo waral ma koy def liggéey bi mu liggéey di ko liggéey sëñ Touba di ko jàppale sëñ Mountakha ci liggéeyam ana lu tax muy maam Maam Ibra Kane dafa maa niru ne day day doomi daara mbay ay waaye juróom yar ko yar bu baax ba tax mu yéene Sëñ Muntaxa ndam ci liggéeyam kenn nanguwul lu ko gàkkal fekk na nag ma doon ko seetlu moom Mamadou ci yar akuk dal ak segg waxam mu bëgg sama bopp te tuñu wunu par yaa dogal lii jaare ci man sëñ bi naa dafa woote nag lii ci xam-xam taali bii di an seen wërsëg ñenn di ñaan moom ab ak ak siiwal la man moom la wàlle ci géew sëñ liggéeyu sëñ bi kon yii ñu teg ne téere bi xam ne ñoom la koy liggéeyal ci turu lislaam may ñaan itam ay moromam yi mu bokkal ñoom lu ñu roy ci moom ndax métier métier mii day siiwal te lu siiw lu baax moo ca gën lu baax nag la sëppi teggin ëpp te yar moo ciy gën te noonu laa gis muy doxee moo waral sax man nangul ko lu ma nangul kenn muy wax kàddu yi kon Mamadou bisimilah liggéey baa ngoog islam bépp nga ko defal rawaate na murid yi rawatina sëñ Muntaxa mi nga xam ne moo sëmb sëmbam ngir liggéeyal ko sëñ Tuubaa mu dajee ak muy sëmb moo xam ne moo doon méccam sëñ Tuubaa muy xam-xam dama ko waxee woon rek ne mbirum sëñ Tuubaa liggéey sëñ Tuubaa bi ñun ñëpp nañ yëkkati nun ko nun ko bokk fabandoo yëkkati ko mu jëm kaw rek dañu dañu laal di suuf loolu ba ma koy wax maa ngi ma ko sëq ñëpp moo tax ma di ko wax te li mu yëg ci sama bopp parce bi mu yëg ci sama diggante ak sëriñ bi am awma sikki sàkk ci ne maa ngi moo ko bokkal noo bokk pëstéef boobu kon ala kulli xaalin nooy war a bokk xalaat jooju nooy war a bokk yitte jooju ba tax loolu moom waxuñu ko loolu moom daara ji moom waxuñu ko waaw na ko borom na bëggee woon rek la cay suñu wàll suñu kem kàttan moom nañ ko ci def na ni mu daa amee ni mu ko bëggee waaw tabax gi eh, li waral li waral tabax gi alhamdulilah rabbil alamin mooy njàng mi jàng alxuraan jàng xam-xam xam-xam ba ci jiitu mooy xam-xamu alxuraan mooy xam-xam ilmu naafe mooy xam-xam bi gën a am njëriñ te mënut a mënees mun mun mëneesu koo ñàkk xam-xam bi am njëriñ la boo xam ne mëneesu koo ñàkk. kon loolu moo jiitu ci daara ji ak xam-xam yeneen yu am njëriñ te ayut yëpp. waaw ah, ah, mu ngoog. mu ngoog. mu ngoog wax jëpp mu ngoog kon. والجن liggéey bi moom laal suuf nañ ko yëkkati bu doon lu ñuy yëkkati bu mu laal suuf ilaawu kalimatillahi al ulya loolu dong muy liggéey bi بدعاء ونور ورزق ولا حسد ومسكن مسكن الخسران ومسكن مسكن الخضران ورشدي والعفاف والرضوان ولا أخلاء وزعج وورع ولا سنة ومنجل من بدا وجعلوا دابا مسكن التعلم ومرجع فكرتي وأنت وما ومسكن إزاد وتهليم ومسكن تسيبه وأنت أبيمي واجعل مسكن الخروج من سلم من عمر يوفي عنه كل من سلم ويرد مسكن ابتلاء لسنة لا مسكن ابتلاء واجعل يا ربي آب مسكن في أرضنا لك وللمعيش واجعل بداية عن الفجر والبعث في دون